Auzu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Uh, suma mbokki Gambia ni maa ngi leen a nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di len jox seen way man bu Martin Sonko sen Dom, sen jarbat ñi sen raka ñi sen mak man ma fas ene jakarlo Talib Ahmed Bensouda souda mang leena a ñaan ken ku si nekk ngeen degluma ak xel bu len ma deglu ak xol jox len ma sen noppa yi ngeen degluma lima leena ñu wasse lu am solo la lu important la Talib Ahmed Bensouda li ma leen a xamal mooy toppa bi ma toppa si biir KMC du affaire yi NPP du affaire yi UDP du affaire yi politics loolu la ma toppee personal hatred and vendetta loolu la nekka di met loolu la nekka di di ma def against an innocent lady a hard working lady man képp ku ma xam liggéey naa Gamtel 17 good years ma jógee fa dem Jibos spend fa 18 months waaye képp ku xam xam nga ne man nit yi jaama te man nekkuma nit koo xam ne dama disrespect disrespectful si suma autorité si te képp ku xam xam nga ne man liggéey moo ma de tax a jóg man de du ma dee dem si place liggéeykaay to make friends or family moom li ko naxari si xolam bi moom waxu ko na ko wax ñu xam ko. Mange follow this um, public um, uh, the finance and public accounts committee proceedings at the national assembly maa follow The seen présentation be. yow ñu la come and report on the activities of the council yow ngay dem di am the, personally attack an individual Be pare ma bugg Talib Ahmed Bensouda Euh, euh, leeral mooy welfare bi the activities of the KMC staff association welfare moom lan la lan la def pour activities of the council the taxpayers money yi ñoo collect loolu lañ ko laaj moom na tontu si faana boobu noonu auditor si dinaa ñëw si ñoom man suma audio si dinaa ko def du benn du ñaar du ñetta dama bugg ngeen déglu ma bu baax a baax a baax te maa ngi jégalu parce que man ken xamewuma wax waaye nag puusante si maraaj bi la em suñ la poussé ba si maraaj bi da ngaa bounce back man nekkuma niti fitna man bariwuma ay talib ahmed ben souda dama bëgg nga bàyyi ma si biir gambia bi lu ma laa xamal mooy dooma munal dara dara nga ma dut munal dooma munal tus tas man seyna bu martin sonko yow lay waxal talib ahmed ben souda dara nga ma dut munal yang ma dégga yow xam nga ne li nga wax si FPAC bi yow xam nga ne yëpp fabrications nga wax te yaa ngi under oath yow rusuloo yow ragaluloo Talib Ahmed Bensouda yow soo ragalutee sax yàlla nga rus yàlla mbokk a ah, te nga xam ne kilifa yi ñu ngi laa déglu si biir Gambie bi te nga xam ne fii nii nit ñi nekkuñ fi dof sooy wax dëgga nit ñi dinañ ko xam soo nekkee tamit si fen nit ñi xam nañ ko taalib yow yaa gën a xam Gambien si ne démba fen nga doon di wax si biir si si FPAC comité bi yaa ko gën a xam Gambien si yow Talib Ahmed Bensouda waaye maa ngi laa waxal ne la ne man Sainabou Martin Sonko pare naa pour jàkkaarloo ak yow si biir Gambia bi fu mu em mu nee yow koy songa man Sainabou Martin Sonko yow Talib Ahmed Bensouda man ngaa songa yow lan laa la def lan laa la def Talib Ahmed Bensouda loolu laa bëgg nga leeral Gambien si yow foo ma jàppee ma fraudulent yow ban evidence nga am against man yow depuis 2000 2021 yaa ngi ma toppa di ba ngawti ngawti bunuloo teg dara si table bi ne lii la def parce que ma document si ma sign maa ko war a sign man maay di chief accounting officer of the council council bi seen boppa su ñoo jël loon man maa ko war a sign yow yaa ngi wax bu welfare bi credit union bi nga xamante ne sax anti Adama Jammeh moo ko xeet ñoo nañ suma office ma signal leen garantie eight hundred thousand loolu kenn déggu ko sa gémmiñ bi lu tax waxuloo boobu noonu lu tax auditeur si bi ñëwee waxuloo leen boobu yow nga ne man suma fraude ngaa wax man man man dama sign guarantee for the welfare of the council te that loan was going to be paid from their disposable income not from the taxpayers money Lola laa bugg Gambia déglu leen ma bu baax Talib Ahmed Bensouda criminal la te maynam bi is so polluted ba nga xamante ne ne he thinks everybody is a criminal like him taxpayers money bi xaalis bi nga collect si marché bi licence ah mbalit bi li se see se nga see collect fi nga dugal loolu lañ la laaj activities of the council not activities of the staff welfare association man loan bi loan bi ma signal staff welfare association bi that loan was going to be paid from their disposable income not from the taxpayers money laajuñ la loolu at the national assembly yow ku la gën a nekk kaawot si biir Gambia bi Talib Ahmed Bensouda gisuma ko that is a that is an easy way out nga dem di taxaw di wax naan waaw the former CEO hanga, nga Seynabou Martin Sonko ah, dafa sign lii dafa def nii dugga na fii génn na fële nele eh, ak loolu lan la am pour def ak activity reports of the council si lan la am pour def ak loolu noonu lan la loolu am pour def ak activity report of the council yow sa deputy mayor bi sa former deputy mayor paamu Moussa Ba ah nga xam ne ñu ngi ko am am on tape maa ngi am tape boobu noonu naa ko ñëw siyaa léegi nii waa Gambia yëpp déggaat ko mu sollicit bribe ñu téeb ko maa njëkkaa ñëw si sa office yow taalib parce que boobu tam da ngeen ma doon di gasal maa njëkkaa ñëw si sa office bi ma ñëwee sa office ma won la téeb bi su ma jikkee dama ko ne ko demal nga bungee ma parce que xam naa ne yéen ak ma planal man xamoon naa ne you were on something te gambia dinaa leen ñu wax si leen loo xam ne si taalib yéen xamu leen taalib waaye xaal déglu leen ma tuuti rek si kanam ma ñëw maa suma jëkkër ñi ñëw sa office nga déglu sa corruption ni député sa député foo ma député meyo bi nga ñaan suma jëkkër nga ne suma jëkkër waxal ma bu ko kenn dégg a Gambia man du ma la sosal du ma la tuumal man du ma fenkat yaa ngay dégg man sa pare wu ma na nangu loolu sax waaye su ñoom suma famille ñu waxal ma ma bàyyi ma ne xaaral ma bàyyi ba beneen yoon xëj na another time dina ñu waaye ndeke yàlla mu maane ma ne lii dina feeñ yaa ngi maa dégg sa député meyo bi. from the taxpayers money mu ne mu ne ñu fe ñu overpay ko by four hundred and fifty thousand dollars pour moom mu dem séedoo ko ak kansulo mi sa kansulo criminal yooyu noonu nga xam ne every year nga fay leen two hundred thousand dollars duñ ko def si seen community activities yi dañ ko dee dem save ko si seen bank accounts suñ paree seen any activity football match sax ñu ñëw si council bi ñu ne ñu sponsor leen ana 200000 bi ñu leen a fay fu dugal maa ngi fàttale ko Pagi Njaago Ibo Town xam nga Pagi Jola Paki Jola Ibo Town bi nga ko def seen so called solar lights yooyu noonu nga xam ne su guddi sax sondeel moo ko dee gën a bright xam nga ñaata thousand dalasi lañ si fay ah projet boobu noonu yëpp gars yi dañ ko séedoo kansulo bi ak ñim ko bokkal yëpp dañ ko séedoo kansulo Ibo Town bi maa ko wax waaw seen criminal activities yooyu noonu lañ leen a laaj taxpayers money bi yéen jigéen yen yéen laay waxal especially yéen jigéen yi nekk si marché bi di fay seen ten ten dalasi si bés bu nekka Talib Ahmed Bensouda seen taxpayers bi seen seen xaalis bi ngeen naa fay daf ko dee séedoo di ko mbumbaay ak ak ak criminal ami si council bi kenn du ñemee wax kuy wax ñu dama salaafi laafi ngi ñi ngi intimidate everybody in the council he is he is running mu ngi manage council bi just like a gangster club soo bokkee si togsam yi yaa moom la soo bokkutee si togsam yi yow dañ laa rey nga dee te du gis ngeen gangster fii mi ñu dee seetaan si sefla bi moom mooy sefla bi Taalib Ahmed Bensouda man bu Matin maa fas yéene jàkkaarloo yow te yow yow ngeen ne man dama accept bribe bribery man dama man maa la wax ne dama accept bribery gis nga investigation team boobu noonu ñëw ministre bi ñim sen da George boobu noonu ki kiñ yóoni si mu ñëw criminal activity bu mu nekkee woon si council bi yëpp xam naa ko position ni CEO bi sax promise na ko ko Talib Ahmed Ben Bensouda yow yaa def loolu noonu pour poison mind bi pour influence ko may wax nga da nga dem am di gots pour taxaw si National Assembly bi di wax ne Alieu Danso daf ma jot thirty thousand dollars pour pour influence my mind yow position bi nga promise George what was the purpose of promising him the position of the CEO da nga foog man xaw ma ko wala yëgu ah ba tax na mu dem twist evidence against us man ma man, ne George ne ko Alieu Danso dafa ñëw dam because dama ko santa dama ko tax liñ agri ak moom mu fiir fiir ko mu bañ kooku ñëw offer ma thirty thousand dollars ma bañ koo jël mu bàyyi ko suma office mu dem mu ñëwaat di solicite another payment ndax thirty thousand boobu noonu na man ma fay ko lu mu bugga ba tey kooku amul da three million dollars yi million dollars ma wax ne ma ko because man xam naa moom li moo request it's not budgeted it's not budgeted for it's not in our books duma ko ko mun a fay agreement bi mooy every ko si taxpayers bi man I was trying to staff bi laa doon di jéem a try pour protect waaye yow nga ne even though court ah, jox nañ eh, they did not grant your application to restrain us court si liñ la wax dafa set there is a state proceeding act that protects all state officials in this kind of thing and uh, in such matters yaa ngi diga. court si luñ la wax mooy court si luñ la wax mooy dama am pour liggéey si bañ ma bañ ma find otherwise until I am found guilty or otherwise waaye yow lan la yow yaa yow yow luwaayi Gambia yow yaa moom ah loolu ngaa jaay nit waa bu neexee yàlla londi dinañ xam daal yow yaa moom luwaayi Gambia wala moomuloo ko ya waa Bundung yéen lay waxal Bundung KMC London Corner londi fas yéene naa dem liggéey képp koo xam ne fas fas yéene ngaa jàppale Sainabou Martin Sonko ñoo leen fekk ma Westfield ñu dem dugga si council bi ñu senda Talib Ahmed Bensouda moom moom moom KMC ndax moom KMC dafa nekk dëkki boppam si biir Gambia ndax KMC dafa am luwaay boppam in this country in the Gambia ndax Talib Ahmed Bensouda moom ma gën a nekk citizen yow Talib man maa ngi noppi su ma noppi yow danga ma foog nit ku tuuti si biir dëkk bi yow Talib yow su ma yëngatoo nga xam ne nii ne laal nga de su ma yëngatoo nga xam ne laal nga ku jógee si yax yu rëy Yo Talib Ahmed Bensouda yo laay waxal man Seynabou Martin Sonko maa fas yéene jàkkaarloo Yo lan la Yo loo teg sa bopp ah? are you above the laws in this country ah yow li lima li evidence yi ma wax dafa clair man joxe interview si Panderi ak everywhere else yaa ngi maa man ragaluma la de criminal nga liñ la laaj mooy mbalit project bi Hali bi ñoo collect foofu noonu foo ko dugal si biir dëkk bi yow sa sa project si yëpp si bi sponsor projects lañ ay Afrishell ay QCell a ah, ay EU funded ay UNDP UNDP funded projects taxpayers money bi lu luñ li ngaa collecte at yi nga toog di depuis 2018 ba léegi fi nga koo dugal loolu lañ laa laaj yow Talib Ahmed Bensouda yow laay waxal man Sainabou Martin loolu di maa ngi ñëw liggéey si nga pareel ma dégg nga ñu seet ndax yow yaa moom KMC yow wéruloo sax yow da dof parce que nit ku am nit ku wér du behavior ku mel ni yow nit ku wér nit ku wér du behave like you man man I am so disappointed for voting for you I regret that the fact ne man I have voted for you I am so disappointed ne man yow you are so unprofessional nga dem démba foofu noonu that was very cheap nga dem ci National Assembly member si naka eh, committee lifin bi di wax naan dafa somebody who has accepted soliciting a bribe man maa sa criminal yi député mayor boobu noonu kan moo accept soliciting for bribe ah kii nii force ma looma sa boppa sax sa plan ma amal yëpp maa ngi ñëw Gambia dama bëgg audio bi ngeen tasaare ko fu dee ka KMC yéen laay waxal bundung maa dim bundung kool al dim maalom al barin dingo al dooma al kotoma Seynabou Martin Sonko ala fo talibe ko abala criminal mañamin la uh, kansulo ay wo bula aye bula nte mu musoleti, ti ni na dimba ya lom nte man fen lom fo doku nte man tapale long, ala tapale maña abe min la je nte man son wala wala tina aman la finna wala tina aman la fi kanje fan pour aye jaka mun ko dimba ika wele ka jusoto bari ñinom mo kurŋoti ñinom fisiri waleti ñinom hasidoti ñin audio ala futtindi gambia be kono tenelluŋo nka nkata doku euh, wala KMC momo min ya lon ko i paretale pour kallo senabu matin sonko ali finti alien tara westil ngata aji ngaji be fatele ta mu nyingambiati fo ate fo ngabe luwa santole nyingambia kono ngaji inshallah rabbi assalaamu aleykum mbokki Gambia maa ñu waat maa nge jégalu bu baax a baax a baax parce que man du ma comme ni ma ko waxee rek puusante si maraaj bi la em taalib daf ma puus puus boo xam ne il faut ma bounce back si kawam yow nga ne yow da nga accuse nit ki nga ne kooku dafa def fraud. kooku noonu kanta accuse la ah yow nga ne sa yow sa bos duñ ko wax démba ñu laaj la si national assem si national assembly bi ñu laa laaj la other than this fraud yéen bi ngeen report seen so called fraud bi ngeen a wax so called fraud because fraud boo xam ne the money is the bank's money it was going to be paid for from the from the uh, staff disposable income after tax nga dem nga ne da nga report loolu noonu auditeur si ñoom xamuñ seen liggéey sax auditeur si ñoom dinaa ñëw si ñoom ñoom si kanam tuuti dinaa ñëw si ñoom waaw parce que ñoom su dee dañoo audit ñoom are they auditing the welfare association or are they asked to audit the activities of the council loolu laa bëgg auditeur si answer li nga waroon a présent auditeur sa deputy mayor bi that nine hundred and fifty thousand boobu noonu bim sollicite bi nga demee Sierra Leone in 2021 mu sollicite ko ba pare di ma force may bañ muy ma forcer may bañ ba dama mujjee jël si téeb bi bi ma ko jotee ma ne xaaral ma fay li nga xam te loolu la loolu lañ war a fay bi li si des ma def until further notice ah nga ñëw rek mu daw si sax office di la duulal xam nga nag yéen ñaar yéen a ko plan because da nga am plan ne yow you will make me feel. in my position as the CEO because Lula la Moi, the fact that the ministry stop you from going ahead to uh, employ your own CEO evidence the ngi si biir vacancy notice for the position of the KMC CEO moo am initial one being yéen Kanifing municipal council yéen a ko fortunately for me I did not apply in that one the second one then I didn't know what was even going on ma gisaati vacancy notice bi ah lii de ma ko gisoon ma ignore ko waaye xaaral ma applyaat ma apply ma dem interview I was successful to be appointed to the position of the CEO ndeke yéen lal ngeen seen plan to make me fail Gambia déglu leen ma ma bu baax ma wax leen Talib Ahmed Bensouda criminal la Talib Ahmed Bensouda su ma leen waxee kuy Talib Ahmed Bensouda yéen yëppay raxas seen loxo si moom nekkoo fa dara lu dul di planal doomi jàmbur yi di leen bring down waaye yo Talib Ahmed Bensouda yow aduna mu ngi sa kanam yow defuloo dara sa liggéey lu dul di lor doomi jàmbur yi yow li nga góob yow di nga ko gar si kanami askan bi yëpp ñu gis ko by the grace of the Almighty Allah waaw sa bor bi nga leble yàlla dina la ko fay nga am nga lal sa plan to feel bi ma ñëwee loo ma ñu ko wax nga jaxase ma staff bi yëpp oytul jaaja caam dafa bugga sa position bi te fekk jaaja si boppam nga amoon intention pour def ko foofu noonu nga ne man ngaa high brain waaye yoo xamuloo ne ki nga waxal is a step ahead loolu nga xamul woon oytul jaaja caam kanjura kaañ yi su ñëwee ta toog suma bunti office direct bu dugg suma office oytul booy saañang oytul ñima oytul nii oytul nele ngeen nekk foofu noonu bugga maa confuse man na yàlla def ma ma nit nekka nit koo xam ne nit ku level headed laa kenn du ma dee wax nit dara si nit ma gëm ko because xam naa ne fii Gambia fii leena moo fi nekka su la nit waxee ne la nii ne oytul diw fekk mi ngi am a e personal grudge against that individual moo kenn du ma wax ne ma ne bàyyil diw ma bàyyi ko man képp ku ma bàyyi jikkoom moo tax ma bàyyi ko yow te yow Talib Ahmed Bensouda sa jikko bu bon bi nga amee moo tax ma bàyyi la yow xam nga ne man ragaluma la yow xam nga loolu noonu barki dee mboo njaay ñëw naa sa office jaakaarloo naa ak yow jam naa la suma buti yow gis nga ma yow xam nga ne ragaluma la waaye sa plan bi nga am to make me feel moo tax yàlla uñi la moo tax munal loo ma dara tus tas doo ma ko munal yow Talib Ahmed Bensouda ministre bi di fag ne de employé di moo la ki nga ki fa bugg a def teguloo ko ko fa teguloo ko fa pour muy laa defaral sa jikko sa sa sa sa sa sa njuuj njaaji mënuloo koo def nga am this plan to make me feel ba pare yow sa boppa yaa ma wax ne ma nii ne ma indi suma own vendors yi ko advice Allah is my witness su ma la tuumal Talib Ahmed Bensouda Gambia yëpp ak maa dégga yaa ne ma indil sa own vendors yi ak sa own suppliers because Fini nii lang ñoom lang soirée yep nga ne ñooñu ay criminal lañ dañ dee nekka séedoo xaalis si council bi ak ak ak directeur si foofu noonu ngeen ne ma booy Sagnang si boppam sax mi ngay pretend to be a nice person moo gën a korop yo yaa ko génne sa gémmiñ bi yaa ko wax waaw yow Talib Ahmed Bensouda Gambia déglu leen ma wax leen Talib Ahmed Bensouda puusante si maraaj bi la em maa ngi noppi nga foog ne awma lu ma la wax yow loo teg sa boppa a yu moo Gambian dan Seynabou Martin Sonko yow soo ma laalee ba ma génn ak suma famille ak suma mbooloo yo nga xam ne si yax bu laa jógee yoo xamuloo koo laal Camaracounda faabiloo rek Camaracounda kaabiloo rek Gambia di entire ma Manjey Samba famille ñun suñ génnee suñ génnee biir Gambia ñooñu rek suñ génnee rek doy na waxuma la suma mbokk yi bundung yi jóg yow loo teg sa boppa yow loo teg sa bopp man ragaluma la yoo xam nga loolu noonu waaye sa xol bu bon bi nga amee sa plan bu bon bi nga amee loolu la la yàlla di la kuppa bés bu nekk yow Talib Ahmed Bensouda you have this plan you had it a long time ago to make me feel in the position of the CEO su ko defee ngeen randal ma nga nga def everything nga ne ma indi suma vendors ak suppliers man sa yàlla ma dimbale sax ma nekk nit koo xam ne dama dee teg suma time I didn't go by your that advice Why? there was this one incident bu happen on kenn rek laa doon di dimbale si suma ñi ñu baax comme ni nga dee dimbale sa gars sa sa sa sa gars yi foofu noonu sa sa sa sa sa sa ñi nga dee dimbale foofu noonu sa sa chroniste comme ni nga leen dee dimbalee ñoom ñoom ñoom Faalan Sonko ñoom Ibrahima Diba comme ni nga leen dee dimbalee kooku noonu ñëw jigéen la comme man mu ñëw joytul ma ma dimbale ko nga yónni Kansulo Habib te dama ñëw ba sa office ma introduce kooku noonu affaire am yow yaay yow yow yaay fisir wale yow yaay hypocrite yow Talib Ahmed Bensouda yal na ma yàlla musal si dajewaat ak nit ku mel ni yow nga yónni Kansulo Habib ñi ñëw after me di ma accuse ne ma dama register suma own company man do I look that man dama doylu soo ko ma wax I am not desperate man ku ma xam gamteel be fu ma nekka xam nañ ne man I am not a desperate person man lu tuuti lu ma am loolu laa la la suma suma suma buti de siga ma si yàlla gërëm ko parce que xam naa ne lu mu tuuti man tam am naa si kanam yi ñu ma nekka yaa ngi maa yow laay waxal Talib Ahmed Bensouda ma def loolu nga si ñoom Councillor Habib suma and it was proven ne everything they were alleging against me were lies yow Talib Ahmed Bensouda ngeen bàyyi boobu noonu fekk yéen a ngeen implémenté seen plan bii ni ñii ñëw di ñëw di ñëw ba si isu député maire bi di ñëw di ñëw di ñëw ba si isu welfare bi welfare bi lan la am pour def ak council activities these are private this is an organisation private business of the staff of the council the, the staff came together staff bi ñoo ñëw together to form an association pour dimbale wante yaa ngee dégga ma sign seen garantie bi nga ne man dama def because loolu nga doon di ut si man dafa dem a dem a dem ba nga ne man ma apologize bi ma signé garantie bi nga yeko ona sanga nga nga ma directors meeting ma ñëw in the presence of all the directors manela ne ni ne I accept responsibility for signing the guarantee maa ko sign and it is part of my terms of reference as the chief accounting officer of the council Wow, maa ko sign Legi, ngene ma apologize man sax apologize na sax if I hurt you I apologize because, man, I'm not a coward like you. I don't run from responsibility. responsibility. Man, I am not a coward like you. my de daw responsibility. Yo, Talib Ahmed Bensouda, you are, you are the greatest coward I have ever seen and interacted in this, in this entire Gambia. Parce que yo, the li don't need National Assembly was a cheap way out, Talib. That was too cheap. Su ma you don't need naari xel du ko xelaat sax pour def loolu noonu. Yow nga ne koy tanis image man. Gambia déglu le ma ma wax leen Talib Ahmed Bensouda li moo def démb si National Assembly fu mu starté mu ne ma apologize mu yónni si Kanjura Kañi suma kër Kanjura ñëw mu ne suma jëkkër ak su suma yaay ne ko Talib Ahmed Bensouda mu ne dafa bugg a Sainabou Martin bindal leeta mu accept ne dafa def fraud mel ni kuy waxaa ay nursery school kindergarten kids su apologize di dina dina nubal suturaam ban suturalam maa nubalal lan lan laa def lu maa nubal man maa ñoom kana nekka di nubal suturaam wala maam ñoom seen fraude bi ñu def from the taxpayers money from the council's accounts ñoom ñi ñu ñaan ma ñu ne ma nubal loolu ñoom ñu ne man la ñoo jóoma xam nga nit ku bon so ay criminal dañ criminal ba nga xamante ne they they are so bad and they want to make you as you are the bad person lu bon liñ def loolu lañ ma bëggoon a yekkal waaye nag yàlla nanguwut <coughs> jégal leen ma yàlla nanguwut ñu ne mu ne ma bind apology letter bi ma bañ ma bind statement ñoom suma yëpp neexal ma bindal bindal lu la wax ma ne suma xel bi yéen xamu leen kii ki naa kii maa diilal waaye man xam naa ko kii dama ko story masta ko ma bind statement bu mu receivee statement bi mu oom ak office am Kanjura Kanye ngi toog moom man maa fa yàlla moo ñu ñenenteel mu ne ma nii ne su ma paree ak yow si biir Gambia bi doo fi jarati dara te ñu seet fooy amatee liggéey waa Wow, mom lola mawa. ma wax te di implement because the malim def si pack bi it was a personal attack personal attack and vendetta against an innocent lady Gambia yen lai waxal nak. lu ëpp turu. tay man ma affected me alone Sainabou man ma affected Why elegasi si mun na koo def seen doom ak ak sen seen jabar yi góor yi Gambia yen waxal Talib Ahmed souda jabari jamur la nekk di torohal ni sen kanam ngen ko setan. man nag personnalité fas yéene naa jóg pour jàkkaarloo Talib Ahmed Bensouda maa ngi wax ñëpp ne leen ne lundi maa ngi dem ci council bi with the court ruling ne I have to go to work until I am found guilty Talib na wax lan laa def na génn si biti mu wax évidence yi na ko génnee su bëggee si bañee ma dugga si council bi dama doon di maslaha ak mom. this is not a matter of fi mu ne nii dafa egsi foo xam it's not a matter of xam nga waiting for the commission or the ministry parce que dafay woon ñooñu ne mom dafa xamadi amut yar lu ko ñooñu santa du ko def muy leen a against ah dafa xamadi amut yar moom daf koo jànga moom moo kalut gis nga xamadi mbubala comme neex nga sol soo paree nga simi ko teg ko fële yow da ngaa jaay xamadi yow Talib Ahmed Bensouda ak ñaaka yar yow toogal londi yow di nga gis nit ñu xamadi ak nit ñu ñaaka yar naka lañ mel londi foofu noonu dinaa fa ñëw mbokki Gambia yéen lay oo suma jigéen yi suma mag yi waaw maa ngi oo góori Gambia yëpp KMC dimbale leen ma yéen laay oo am not desperate xeex laay xeex xeex bo xam ne bugguma mu jaala dem si keneen I'm not fighting my fight alone I am fighting for everybody else for every other woman in this Gambia defuma dara I am not a criminal I don't even know how to become a criminal I am an innocent hard-working woman toiling for my family day and night Yo yo, uh, Uncle Ousseynou Dabo Uncle Ousseynou Dabo Seynabou Martin Sonko mooy waxa yow doomi Hadi Camara oncle Ousseynou Dabo xam nga suma yaay suma yaay ñëw na sa kër yoni yoni yoon anti sali su amee xew kiram suma yaay moo dee ñëw toog a cere yi tay cere yi yëpp toog a ñeexi cere bi moo yaa Hadi Jaalo oncle Ousseynou Dabo soo seetutee si suma yaay sax nga seet si yaa Hadi Jaalo ah man doomi man doomi Fodé Martin ma Mary Sène di suma di di di suma foos waaye fi suma papa ah moo ma yar Hadi kamara moma nampal ma Mary Sène yar ma maam Mary seen ak yaa Hadi Diallo seen yaay yi ñoo bokk ndey baay kii Awa Sylla kii yaa Umu Sylla oncle Ousseynou Dabo ah yéen ak maa wax loo information boo xam ne bëgguma woon naa ñëw with the public to the public with this information oncle Ousseynou Dabo ñëw naa sa office ma ne la waxalal taalib mu bàyyi ma oncle Ousseynou Dabo ma ne ko nii ne ma ne la waxalal taalib ñu waxtaana waxtaana waxtaan bi egsi su affaire suma yaay nga ne ma yow yaa ngee wanda sax di lacce suma yaay yëpp Gambia fan la suma yaay nekk ma ne la suma yaay dafa feebar si suma loxo la nekka maa ame suma yaay dégg ma ne ma ni soo ñibbee kool ma ma waxa sa yaay waaye sa criminalité ñu ngi ma nekk di ma distract ba taluma loolu oncle Ousseynou Dabo yow laay waxal waxal Talib Ahmed Bensouda mu bàyyi ma defuma ko dara personal vendetta la am against me te lu tax mu naxari ma luy buti xolam bi tegu teguma ko ko hatred bi mu am si xolam bi moom moo bon bonam te yàlla xol la dee fay waaye Talib Ahmed Bensouda loolu di maa ngi ñëw by the grace of the Almighty Allah yow nga try nga ma man I was being civilized I am not a coward like you Talib Ahmed Bensouda man a coward I was civilized and matured yow Talib Ahmed Bensouda yow li Linga def démba it was unprofessional there was no maturity in it Your ngay ma personally in National Assembly Wow! what has the Welfare Association activities got to do with the council activities taxpayers money be fi nga dugal Sambalit project bi di nga ko it up ah explain explainal Lolo noonu you went behind the bars Be pare yaa claim di wax ne is a PPP what kind of PPP is this man I know PPP PPP arrangements all over the world the private investor comes with its uh, with their with their finances and their resources manpower and everything they invest operate it understand nga bill operate and transfer over a certain period of time yow sa PPP arrangement bi sa mbalit bi nga xam ne council bi ñoo ko fon 100 yow da nga am dara loo wax yow doo tëj sa gémmiñ yoo yow Talib Ahmed Bensouda man su ma nekkee yow du ma wax Gambia kenn dégg ma yow yow sa mbalit projet bi ni nga ko stabiliser ah dafa wrong is not in line with the laid down, laid down rules of this country yow kenn aayewula office with all the criminal activities in nga criminal taxaw di wax ne nii ne man du ma si suma office yow ba londi bu neexee yàlla di dinañ seet man ma yow kan mooy criminal bi si biir Gambia bi ah nga jël taxpayers money bi squander ko yëpp dem jënd dem inflate truck truck prices yi nga inflate ko yow loolu waxuñ ko truck bu si nekk yaa ko inflate by over two million dollars Yo Talib Ahmed Bensouda yaa sa criminal yi ah yow nga ne man ngaa wax ne ni man dama def fraude yàlla bu ma mel ni yow waaw sant naa yàlla ba nga xamante ne suma fraude bi dafa utee ak yow sa bos bi ni guddee bëccëg parce que man welfare bi la signal garantie pour gars yi mun a go on with their activity waaye yow mu jël taxpayers money bi di ko squander day and night in and out te ba pare nga ne kenn du ko wax yow loo yaakaar yow yaay kan Talib Ahmed Bensouda ah? si xaalisi marché bi nga collègue di ko séddoo ak dat Modou Ndiaye boobu noonu may wax mu ne dafa am gots muy dem si si si ministre bi di wax ne ñoom staff bi bëgguñoo liggéey yow Modou Ndiaye yow koo represent mu ne staff bi bëgguñoo liggéey ak ak man yow who are you to determine ne yow bëgguloo liggéey ak man yow yaa sa yow sa yow Modou Ndiaye ah parce que yow kenn you were acting alone on the orders of Talib the rest of the staff we are not in line with you xam ngeen lan la dama bugg a Gambia ngeen ragal yàlla ragal leen yàlla ragal leen yàlla te ngeen bàyyi doomi jàmbur yi defuñ leen dara oncle Ousseynou yaa ngi maa dégga yaa maa dégga waxalal taalib mu bàyyi ma te nga wax taalib ne ko yow balaa nga wax sama criminal yow lu tax report loo député mayor bi ak Kanjura Kanyi one million dalasi bi ngeen ko fay mu dem Dakar cash money may wax mu am di gos di wax ne nii ne moom daf ma lebal hundred thousand dalasi dalasi boobu noonu bi ma ko lebalee man maa ko santa mu lebal ma ko moom mu ñëw suma office ne ma nii ne yaa ngi ñëw fii es am ma jox la xaalis bi nga téye ko pour nga mun a settle down a ah, soo paree ngay ma koo fay ndànka ndànka ma fay ko ko sax mu ne ma ni ne 25000 bi wéeval naa la ko man bugguma alali jàmbur ni nga maa gis nii man ku ma xam-xam ne man bugguma alali jàmbur si lu ma lu tuuti lu ma am man si loolu laa doylu mo moo ñëw jël 100000 bi mu ne dafa jaay laanam mu ne dafa jaay laanam mi ngi amee xaalis bari mu ne ma yaa ngi ñëw fii es maa ngi jos ñëw si council bi first week bi bi ma ñëwee si council moo ma ko offer mu ne ma ne am ma ma jox la xaalis bi nga téye ko waaw ba nga setul daan because fii nii easy wut waaw staff bi duñ dee am loon fii nii waaw moom kan kii moo ma ko wax moom moom moom Kanjura moo ma ko wax hmm? léegi mu génn si wax ne moom dama ko dama daf ma lebal xaalis waaye man fay naa la waaye ak yow muñ fay one million dollars yi taxpayers money did you return it ak sa sa sa two hundred and fifty litres of fuel yi nga daan receive every day si doom side bi lu tax loolu doon reportu leen ko tuddi National Assembly lu tax lu reportu leen loolu tuddi National Assembly yéen lan la xanaa da ngeen foog man awma gémmiñ pour dama damaa bañ wax rek bugg because bugguma kenn dégga ma man jigéen laa dama respect dama am suma comportement dama respect suma boppa te xam naa ne dama am famille si biir dëkk bi bugguma ñi ñi dégga ma yéen lan la waaye fas yéene naa jaakaarloo ak yéen du ma daw foo leen ko aapa aapa naa fu ko raw yow Talib Ahmed Bensouda foo ko aapa aapa fu ko raw yéen jigéeni marché bi yéen laay waxal élection si mi ngi nii di dig marché Talib Ahmed Bensouda seen xaalis bi daf ko dee daf ko dee jël di ko dee moom ak Modou Ndiaye Marseille yëpp xam ngeen kan mooy Modou Ndiaye waaw di nangu ñi seen bitig yi di jox ñi nga xamante ñoo gën a mun a fay xaalis Marseille Latrikunda criminal activité bu ñu fa def yëpp yëpp mun si suma diggi loxo bi. tray naa ba soona pour def ko mu nekk une transparent maana waaye suñ demee def moom ak dat kansulo boobu noonu di Marques committee chairman dat kansulo ba côté kansulo Lamine Jammeh boobu noonu ah. Ni ñoo bonte ñii ñoo yées ñii ñooy criminal ni amuñ jom sax ñii ñeme ne ñoo taxaw di wax naa ne nii ne man dama def fraude yéen ñii ne bés bu nekk yéen a ngi fraude Gambia yëpp xam nañ ma ñii jëflante ak yéen lima maa wax ñu ngi koo xam li maa wax xam nañ ko yéen a ngi yéen a yéen a ngi extort money from people day and night ngeen taxaw di wax naa ne man criminal la naka dama def fraude criminal taxaw di wax an innocent person who is trying to do his or her job ne moom criminal la yéen yéen a ñàkk a jom yéen amu leen jom sax waaye yéen maa yéen la si biir Gambia bi nii loolu maa ngi ñëw dem leen taxaw si kansul bi ngeen xaar ma yéen da ngeen a dof dof lu yéen xamu leen nit ku dof su ma ñëwee foofu noonu fi ngeen a xam naka la nit ku dof mel yéen wéru leen sax yéen da ngeen am dara loo leen ma wax man li ma li ma war a wax sax xaajagut sax xaaral ba commission bi commencé si ngeen a xam ne luñ war a wax lu tuuti rek laa leen mosal yéen jigéeni marché bi yéen laa waxal seen mbokki jigéen moom la Taalib Ahmed Bensouda téye nii di ko toroxal defuma ko dara lu ta mu bañ ma mooy yu tilim yi ñu ma doon di bugg a dugal loolu laa bañ loolu laay daw di ya yaaxa seen xaalis try naa besoon biñ biñ maa génnee si council bi dama bàyyi foofu noonu a surplus of 24 million dollars Allah is my witness right now as I'm speaking to you xaalis ba yëpp jeex ne nga ñi ngay roon déficit dañoo leb si banque si di fay salary loolu moo fa nekk right now bi ma fa demee in 2020 in 2020 yàggu rek covid 19 bi hit government jox leen ñu duñ wax loolu de government jox leen 15 million dalasis KMC alone 15 million dalasis la leen government jox si xaalisi Covid 19 bi waaye duñ ko doo leen ko dégg a fende you will never hear that from anywhere ñii ñoo bon te yées te mun a noba jëf. ñu jógee si loolu nawek bi ma fa demee nawek ñi ngi leen ameloon xaalis pour ñu am xaalis boobu seen loxo woo se problème damaa ñëw damaa ñëw ñu dem mitin ak ñoom. niñ approach approché nawet was very long Why man because of my professionalism my engage and the commercial director then kooku noonu déglu the lady listen to me and she knew that a proper human being is now dealing with me kooku noonu si la ñuy a way forward i am meeting ak managing director you know, yëpp commercial director be more ko arrange because of my interaction my personal interaction with her I related to her like a human being and at, at a professional level Ben week fay leen 19 million dollars Add that $19 million to $15 million, a surplus of $24 million. loo Hamne is different from the cash flow the daily cash flow of the the council Like leen ko fan la dugal xaalis boobu noonu auditeurs yi soo leen xamutee seen liggéey kaay leen ngeen toog ak man ma wax leen seen liggéey man Sainabou Martin Sonko man maa fas yéene jàkkaarloo Talib Ahmed Bensouda ak criminal ami dawuma leen benn yoon parce que fi mu ne nii lii at it is it is at a personal level Li this is no more about uh, administrative procedures or court proceedings or whatever. This is personal attack. Yo Talib Ahmed Bensouda yow ya, yo yo ya ma push to this level Yo lo teg sa da nga taxaw di yaxas ma der nga dem nelo. Hmm? ma dem da nelo. te dara du ci gina. Yo lo teg sa boppa yow loo teg sa ah Yo di nga taxaw di yaxasuma der Yo xam nga ne yo ya gina xam Gambiens yeb ne da ngeen ma tumal. Yo ya sa criminal si yow yaa yow yaa sa crime yéen a gën a xam everybody else ne yéen da ngeen toog a ngeen da ngeen toog ngeen a distinct ngeen koppama ko waaye bu neexee yàlla yéen yéen a koo yekka ngeen lekka ko yow bu welfare bi nga wax anti adama bi ma signal moom ak credit union bi eight hundred thousand dollars yi Trust Bank di same period lu tax boobu noonu doo leen ko dee wax fen yéen yéen ay criminal yéen yéen a yéen yéen ay yées te bon Gambia tasaale leen audio bi fu nekka Sainabou Martin Sonko lundi ten o'clock kuma ma bugg a jàppale ñoo leen fekk ma wessil maa ngi xaar foofu noonu yëpp bundung bundung yéen lay waxal bundung aldim maalom bundung kol, musuke dindin keba aldim maalom seynabu wala be na man ni ko aman straight forward bari nga kan na haajo fa jeele ali finti nang aliyem makoy parce que talibe min ke kan na teng ama ama ama aman tara ka kente doron la aba ke kan bundung dingo be la ke mc dingo be abe wala tilimbali kan teng haade saynam futatale ñanta futala dame ate ate ate ya fam muta jumalati fata ya mirale ko abe ko ko min di ate aba kelale fente finti laje natara ate le tamul wati ñun ñin banko to abe senegal le tenen lugo mba be mo be batukan je mbal ko mandila ali finti nan def len te yala ta alake alake alaye anala kila ali finti nan te yala ta gena len te yala ta ngeen ñoo dimbele ma ñoo len ngeen soble ma lu opaturu tasare len audio bi fu neka mu duga fofu nonu te li ma wax nii si Talib Ben lu tuuti la criminal la sàccakat la xamu dara lu dul sàcca yow balaa nga wax sa sa contrat ay Blue Ocean fële nele waxuloo loolu de yow yaa bon te yées auzu billaahi mina seytaani rajim asalaamu <laughs> aleykum wa rahmatullahi taalahi